quelle humiliation 94 Walf Sénégal dellu si na di leen char waaw di char mboolem képp koo xam yaa ngi topp suñu site bi di 94 Walf Sénégal seen analyse chronique yi xam dañ koy defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di jaajëfal ñu ngi leen di char wooy leen di toppal 94 Walf euh, Sénégal da xam ne patriotes yi ngeen fiy fekk patriotes yi dañoo jàng dañoo gëstu dañoo topp xam-xam li ñuy wax tatanu woon ko buñ toogee ci plateau yi ku amul niveau rek doo leen dégg moo tax daanaka am na ci yenn plateau yoo xam ne nii xam naa ne danañ jiwaat de xam bu dee patriote yii rek duñ fa toog di wax yaa ma neex wala di wax bakkan parce que dafay am façon plateau yoo xam ne nii ña nekk la ñuy wax amul bopp amul geen moo tax daanaka sénégalais yi nga xam dañu gëstu ci xam-xam xam-xam-xam xam débat politique wala xam bu baax a baax a baax ña fa toog seeni message seen comportement moo tax daanaka duñu sonn ci yenn plateau yi daal parce que mënuñu mënuñu leen a téye daal maanaam seeni wax munu leen mënu leen a daal loolu moo tax moo tax nag euh, gis nga patriotes yi commencé nañoo ñëw ci euh, plateau yi c'est nii la di wax xam-xam bu baax voilà bu ko defee débat bi euh, am niveau bu ko defee débat bi ngeen teg ko fu kawe ñi nga xam ne nag xamuñu gëstuwun daanaka yaa ma gën a xam sama magam moom wala sama rak wala sama yaay wala sama baay yooyu la ñuy incarné waaye du seen xam-xam voilà bu ko defee nag ngeen teg leen seen place voilà loolu moo loolu lañ soxla voilà ñu xam ne maanaam mbir mi du questionné maanaam maa am lii rek fii laa war a toog wala maa mel nii wala nii laa toll non loolu da ngeen koy weddi xam-xam lañu wax xam-xam te xam-xam kenn du ko voilà maye kenn du ko tamit able wala nga xam ni euh, xam-xam dañ koy euh, wuti xam-xam dañ koy jàng dañ koy gëstu waaye du questionné mala man am naa place fii rek voilà ku ñëw boo jàkkaarloog man ma contrer la te yow dèjà say wax kenn mënu ci dóor sa xale sa doom voilà loolu amul benn sens sa wax ki maanaam réew mi mënu ci maanaam daal réew mi mënu cee gis boppam daal voilà kon patriotes yi bu ñu bàyyi nañu dem ci plateau yi aj niveau bi nag aj ko comme macha allah patriote bu mag bii gis nga plateau bii mu toogoon tey nga xam ne ne am na ñu fa nekk ñoo xam ne daanaka wax dëgg yàlla man gëj na maa seetaan sax man wax dëgg yàlla jàkkaarloo parce que wax dëgg yàlla ña fa nekk tamit man mënuñu ma orienté voilà wax dëgg yàlla lan la ñuy wax voilà lan la ñuy wax lan ay kalaasu Badara Gajaga fu ñu ne ñooñu man lan lay doyee seen i plateau Badara Gajaga moom fu mu toog du ma xool doobu débat wax dëgg yàlla du ma ko xool patriote bu mag bii dem fa nag wax dëgg fa yàlla moo tax ma topp débat boobu noonu ndax xam naa ne danañ dégg xam-xam voilà dëgg xam ni débat bi dafa war a euh, nekk ci kaw voilà nga xam ni euh, dèjà sénégalais yi loolu lañ soxla ci débat yi ci e, e, e, ci euh, Sénégal voilà plateau yi borom xam-xam yi dañ fa war a dem toog fa voilà waxak ñi nga xam ne ni xamuñu xaala wala kasiran dañ nekk ci plateau yi amee nit ñi xam.